kii di Cheikh Zayed gannaaw bi mu bàyyeekoo ci àdduna ci ati ñaari junneeg ñeneent. mbokk yi ñu daal di jàll nag ci fànn bi nga xam ne moom ñu yónnee seen leetari xol yi ñu seet nag tey xoja xoli kan la moo laal. jërëjëf ma ma yi seetaan tey nag suma xool leetar bu ñu leen fi ameeloon muy jógee si benn xale bu jigéen xale bu jigéen bi nag mu ne moom jamono ju nekkani nekk nii mu ngi si néegi sëyam mu ne waaye lii di sëy bu mu nekkani bala balaa mu si don duga doona na loo xam ne nii lu métti la woon nek lii di yaayam ak magam bu jigéen ànduñu woon si sey bi mu ne lii di jëkkëram ji ni bu ko ñëwee utsi yaayam daf ko ne déedéet kii doo mun a sëy ak moom mu ne ko lan moo tangale ne du ma mun a sëy moom mu ne ko ne ki du la mun a yore kon doo mun a seeg moom ndig doo mun a seer koo xam ne nii du la mun a yore mu ne ko ne waaye lu tax nga ne du ma mun a yore mu ne ko ne kii amut lum laa yore mun ne ko ne déedéet ndik man sëy ma pour alal dama sëy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 E am am sëy sooy ut jabar ñeneenti ngay ut ci moom alalam walla rafetaayam walla e, e, juddoom walla xam-xamam léegi nag yonent bi ale walla diineem yonent bi ale salaatu wasalaam mu ne ñeneenti yëpp bàyyi ko nga ji nga ti ñetta yëpp bàyyi ko nga téye diine su amee diine rek jeex na bu ragal dara insha allahu lañ koy digal na téye sëyam bi bu baax yaayam ak baayam lu mu yàgga yàgga danañ delloo ci sëy bi ndax de sëy su fekkee am moo tax nga def ko rek dafay jeex su fekkee taar la itam dafay jeex su fekkee ni itam euh, mbokk la loolu itam dafay neex dina naxari waaye islaam bi moom benn la te yaayam ak baayam itam ñu ngi koy digal ñu ngi leen di digal ne ñu dellu ci islaam la leen yàlla digal ñu déglu ko te ñu toppa ko na ko yaay bi bàyyi mu sëy loolu moo gën a am njëriñ parce que man dal na ma suma doom papa na du ko du ko may yaayam du ko may jëkkër waaye man ba papa gaañoo parce que ma jël ko may ko ko parce que su ko ko mun na ko ñëw biiral te du ma dara man ma jël ko jox ko man daal li ma am advice pour yaay bi na ko bàyyi mu sëy waaye su ne nangul bante mu yónni ay kilifa si moom ne ko su nekk nii man jëkkër ji laa bugg a xale ku mu bugg a ko so soko nga may nga noppale ko waaye soko ko may mu ne na de biya xam boppam fete to do mu ndax waaw man loolu daal laa ci xam ne na yaay bi d'accord may ko ko comme que jullit na ci ñu ngay sëy ba pare ñu ngay sëy ba pare waaw na ko bàyyi ci sëy waaw na ko bàyyi mu sëy sëyam bi nag wala mu seet ay kilifa yónni ko si ñoom ne comme fi nekk nii comme que jëkkër bii laa bëgg bàyyi ma rek ma sëy ak moom man loolu laa am pour wax xale bu jigéen kay na muñ na continuer sëy bi rek parce que sëy dafa doon loo xam ne ko dogal yaay bi tamit warta forcer jigen bi jigen bi si bu gëna goor góor bi si bu gëna goor sunna ak farla ah na si yaa na si yaa rek sëy nañ ba pare hmm. jigéen bi bugga na góor du bugga leen sëy nañ waaye ah. taxul yaay bi tok mu ngee dem ci sëy sa pour ah, kay ah. kay yaay kay def di def rek parce que ay ah so bëggee dogal gaa yi mun am nañ jëfandikoo gars yi donc mu neexal gars ba si kanam rek yàlla baax na. comme que papa moom wax na ne mu ne moom papa moom nangu na si waaye moom yaayam nanguwul man daal man si suma xalaat daal na si génn parce que nit ku nekk ay waay waajuram nga am. xam naa ne nag naxari na ko mu ne moom sëy bi neexut ko dina neex nag diggante boobu moom daf dee neex waaye duy am mujj man daal man loolu loolu daal may suma xalaat comme ko su fekkee mun naa génna si sëy bi daal na si génn mu am ak ay waay juram jaamu. kay bi tey bi ñu ñëwoon ci kër doon laajte kilifa gi kenn du dem naan ana yaay ji moom mooy kilifa gi moom la ñu laaj baay ji moom la ñu laajte te gannaaw yàlla dogal na ba nga xamante ne xale bu jigéen bi suñ boroom dimbale na ko ba way juram bu góor ànd na ceeg moom na góor góorgóorlu rek lu des nag ci sëy bi loolu des na ci loxo suñ borom te yaakaar naa ne sëy nekkul na lu ko takk man na koy tas waaw sëy nekkul ne lu ko takk mooy dem rek tas ko waaw gannaaw ji moom ànd na ceeg moom na wakiilu rek wéeru ci yàlla rek waaw ñaan yàlla ñu ñaanal ko yàlla maam may ko si njaboot bu góor rek bu jigéen waaye nekkul ne moom buñ ne takk nañ ko ba pare ñii ne bàyyi ji ànd na ci yaay ji àndun ci kon dañuy tas sëy bi déedéet man lu ma koy digal mooy na jàpp sëy bi na continuer si sëy bi rek ba borom lu ko ci may rek moo xam ne loolu la waaye ji moom nekkul ne moom mooy joxe doom wala bàyyi ji moom mooy joxe doom nit léeg-léeg sëy dana am baay dana ci ànd yaay ànd ci jigéen bi ànd sëy bi ñu dugg ci bëgg mu bëgg doom doom te kon waxuma koo xamante nag na baay ji ànd na ci waaye yaay ji àndul ci moom na sëy rek bu fekkee wàllu ay am doom ak doo di nga am doom doo am doom loolu moo ci jaaxal loolu ci dara moom na sëy rek no xale bi jigéen bi ne muñ naxante ak way juróomi jigéen ak bu góor na na def loola dégg nga wante xale bu góor bi rek naka jàpp ak ñaari loxo ñoom ñaar ñuy continuer muñ rek dégg nga mbokka yi lii la ñu waxtu meyoon si seen programme yi jamono ji waaye naka di leen fàttali rek ne seen tawati xol yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dee yónnee ci email jamono ji la at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com ñi nga xam ne ba tey rek téléphone moo leen gën a yomba dama ne call leen ma si 36 555 32 36 555 32 waaye ba tey nag am nañ line bu es muy Africell muy nombre bi mooy 20 12345 20 12345 di jaajëfal bu baax papali bu Africell mbokka yi ñu tàggu leen ba beneen bés bu ay ci waxtu TV jërë ngeen jëf